diine ji ñoo ko war a déedéet loolu kenn du ko yóbbu fa yàlla ku xamul yàllaa la xamalul loolu nangu nan ko waaye nag ku bëgg yàlla xamal la xam nga na ngay defa na nga def ba mën français rek def ni islam boo ko ñuy def yàlla di la xamal islam kon boo ki xam ki xamul day yëg responsabilité war naa xamlu ki xamul day yëg responsabilité war naa xamlu ki xam yëg modeste xam ne moom mii li nekk ci moom yàllaa ko def ci moom waaye du njàmbaaram su ko defee mu toroxlu xam ne xam-xamam bii taxul mu ëpp nit taxul mu ëpp nit taxul mu gën tam kenn ab xam-xam kenn du ko gën a kenn li nit di gën a nit mooy la yàlla considéré ne moom la moo di ngën mooy ak ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum bu ko defee kon jullit bi dana jële ci gëm ab dogal toroxlu dana ca moytoo ak mbewte yow mi nga xam ne yaa yaa yor réew mi nee nañu yaa ko moom wala yaa yor milliards yi yaa am ci ay milliards yi lu dul jeex boo dee nekk miskin moo xam ne mbubb mu sol daa xotteeku bul yaakaar ne yaa ko gën li nga am joxoo ko sa bopp la mu ñàkk xañu ko boppam wax nañ ne yonent yàlla noox ab yonent la daa mos a gis ab xaj xaj bi yooy lool xaj bi tawaroon ko lool di coyti coyti tàllal lam ñu def nu xool ko ak feebar beeg ragg geeg yooyaay bi muy mu way moo bi xaj gën a ñaaw moo bi xaj gën a ñaaw xaj bi jékki-jékki sans borom yàlla waxloo ko mu ne ko moo man nga xas wala buur bu ma melal nii nga xas foofu la nuux summee mbubbum rëylu noppee jàpp ne nit a gënub xaj nit a kub xaj ah nit bu gënee xaj sans borom yàlla ku gën a rek waaw nit a gënub xaj kay waaye yàlla nit umuman moo gën xaj umuman waaye Abdou Aziz Touré de bu mu yaakaar ne moo gën xaj bi waxuma nit de waxuma Abdou Aziz Touré bu mu yaakaar ne moo gën kenn ci yéen waxuma loolu dama koy jëlale Abdou Aziz Touré bu yaakaar ne moo gën xaj xaje ko gën jamono bi nga gëmee sa xol ne am na kenn koo gën rek kooka la gën kooka ne mu mel melalu ko boppam yow ni nga mel melul sa bopp du dégager responsabilité kam melul na mu war a mel waaye yow doo fi amee mukk faveur booy jéem a yëkkati ko ci kaw kenn loolu la gëm ab dogal di def ci xoli jàmm bu ko defee loolu moo tax ba da nga gis jaamu yàlla bi muy sant muy sant ci jëf yu rafet li mu jëf yëgoo ne yow jullit bi soo jëfee ay jëf yu rafet da ngaa war a sant yàlla waaw ana ku la may tawfiq nga jëf ko ana ku la jàngal jëf ji rafet ba nga xam ko yàlla mi lay jàngal jëf ji rafet nga xam ko mu may tawfiq jëf ko ba nga jëf ko sant ko moo tax mu bokk ci ñaani jullit ñi alhamdulillahi alladi hadaana li hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadaana allah naa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo nu gindi ba may nu tawfiqi nu mën a julli mbaa nu mën a leeral lii ci diineem ji mbaa nu mën a woor te itam duñ kon woon jubi su fekkoon ne yàlla jibalunu nu nga nga gis julit bi mu dem ca tool ya xoolal julit bi dem ca tool ya bay ruujam set mu bay gerteem bay dugubam am xaalis dem jënd jox jabaram dépense jabar di jënd aw yàpp ci penc ma jënd ceeb ca bitig ba jënd diw ñëw taal mu ngoog ñëw taal toog ba mu ñor mu yekk moom jabar ji mu toog jëkkëram toog seeni doom toog ñu bokk lekk ba suur xanaa loolu de mbokk yi lew na lool loolu lew na lool loolu lew na lool waaye li muy lew lew ana ko ñaq koo ñaq koo liggéey ah koo liggéey ah dañoo ñu wut wax yow waaw waaye bu nu waxut ne yaa ko liggéey itam ñu wax ne bokk yaa demoon ca tool ya ji mu sax nga bay mu ñor nga góob bàcc jëri jaay xanaa xaalis ba yaa ko moom waaye boo jëndee bu sa jabar jëlee dépense boobee la lew domm ba toggal la ci ba nga lekk ba noppi defal li la sayidina muhammad jàngal sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na boo lekkee ba noppi waxal alhamdulillahi alladi atamani hada wa razaqanihi min gayri xawlin minni wala quwa maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma leel ñam wii yàlla mi nga xam ne moo ma wërsëgal ñam wii du sama pexe du sama kattan du sama doole waaye waa da nga xam ne xaw ma am xaaruna la xaw ma di xaatal xaatal xaaruna daa amoon alal ju bare bare bari bew bew yaakaar ne moo gën nit ñi ndax lan ndax mu mu rafet ndax lan ndax alal ju bari ñu ne ko xaaruna tuubal te alal ji yàlla mu ne xam ngeen lu mu doon sama alal ji maa ko liggéey maa ko moom lew ne ma doom ah loolu la wax de moom xaaruna mu ne moom moo ko ñaq moo ko liggéey moo ko moom lew ne ko doom ab jullit di wax loolu de ab jullit su bëggee xam lu mu war a wax na seet ba xam jiw woowee mu fab gerte ga mbaa dugg ca jiw wa fu mu ko jële da koo jënd kag ko jaay fu mu ko jële jiw wa yaa ko sàkk da ngaa judd sàkk ko fi jiw wee dafa juddu sax nga fab ko tob bi tob bi suuf si def ko ca suul fab ndox sotti ca da ngaa dem tëdd di amit ko saxal ku saxal ku màggal ku tóortóoral ku ñoral kon noo ko moome waaw yaa ko ji yaa ko bay bismillaah loo ko doon jiyee loxo bi loo ko bayee loxo bi loo doon xoole bët yi loo doon doxe tànk yi ndoxum bët mi li mën a gis ku ko ci def tubaab bi koo ci def docteur bi koo ci def sëñ bi koo ci def sa ndey ak sa baay sam pexe yàlla subhaanahu wa taala loxo bi ak ñaar yi yëngatu ak sidit yi ak tànk bi ku ci def li ko mën a yëngal ba nga mën a bay mën a góob sa bopp yàlla subhaanahu wa taala kon nag noo bay wala yàlla bay yàlla nee na afara aytum ma taxrusuun a antum tazraunahu am nahnu zaariun yàlla nee na xool leen rek li ngeen wax ne yéen a ko bay ndax yéen a ko bay wala nun noo bay xam ngeen ne suñu borom yàlla subhaanahu wa taala moo bay moo bay ci kaw moo def ci jàmm bi kattan akum xel moo bay ci kaw moo sàkk jiw wa moo bay ci kaw moo saxal gàncax ga moo bay ci kaw moo ko ñoral kon nag yàlla moom yi su la bayalee ba mu ñor bul yaakaar ne moo bay yaa bay yàlla bay yàlla moom yi bu la joxee ab xaalis bul yaakaar ne yaa ko liggéey boo joxee sa jabar bol ne sama xaalis bii ma liggéey jox ko sama jabar jiig mu lew ma domm mu toggal sama dépense bi maa ko moom déet moom moom fa dara waxal alhamdulillah maa ngi sant yàlla alladi yàlla mi nga xam ne atamani haada moo ma leel ñam wii wa razaqanihi te moo ma ko wërsëgal min xayri xawlin min nii ci ludul kàttan nga bawoo ci man wala quwa du doole gëm ab dogal loolu dañuy jëriñ daf ñuy jëriñ tawaado modeste toroxlu daf ñuy jëriñ sori ak mbewte day tax ñu xam suñu bopp mu ngoog te itam nun jullit ñi war nañoo dellu ci sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wóolu wu ma ne nekkut ci mbooloo mi ñoo xam ne bu ñuy bëgg a lekk duñu du ñu wax dara bu ñu lekkee ba noppi itam du ñu wax dara ku dem lee am na ci mbooloo mi te sayidina muhammad ndax dañ ko yónni ci ñenn bàyyi ñeneen moom mbaadu sayidina muhammad dañ ko yónni ci ñooñu ngi tudd ay ibaadu te nag kenn yónniwu ko ci ñeneen ñu ci def ah damaa bëggoon ñun ñëpp nu tuub te xam ne buur bi benn bee de gaa ñi buur bi benn bee de ñun ñëpp ñu tuub te xam ne buur boobu day ndaw li mu yónni lenn lee de yàlla dong ngay yàlla ci moom ci ay ndigalam moom dong la nit ñëpp war a jaar sayidina muhammad dong la yónni sallallahu alayhi wa sallam moo mbokki jullit yi ku nekk ci leneen lu bokkut ak li sayidina muhammad indi boo demee fa yàlla loo koy wax looy wax rek boo waxee bàggal mu ne la man kat yónni woon naa ndaw lu toll ne Muhammad joxoon naa ko samay wax joxoon naa ko alquran jox naa ko sunna ndax xam ngeen ne sunna sayidina Muhammad dañ koy askan ci ma waaye ci yàlla bàyyi ko anzalna alayka zikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim sans problème yàlla moo wax sayidina Muhammad ni ko wàcc nañ ci yow sunna ak zikr mooy sunna ngir nga leeralal ci nit ñi alquran di nga xam ne ji moom la wàcc ci ñoom alquran ci la ñuy fekk war gu julli war waaye nag julli juróom la tisbaar takkusaan timis gee tisbaar ñeenti rakkaa la dañ koy yelu takkusaan ñeenti rakkaa la dañ koy yelu timis ñetti rakkaa la dañ koy biral loolu kat kenn du ko fekk ci ay ay alquran ñu ngi koy fekk ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag sunna sayidna muhammad mook alquran benn lañu soo leen boolee ñoo di njub ñooy la yàlla bëgg mooy tax a dem àjjana amul leneen luy jëriñ kenn fenn yawmal qiyaamati lu dul loolu yàlla ñu ci yàlla dimbali kon nag yonent bi dafa jàngale ay aadaab ay yoon yi war a sàmmanteel ci lekk kuy bëgg a lekk am na yoon yi lekk nan fexe ba xam ko kuy bëgg a naan kuy bëgg a sol yére lu waay di bëgg a def am na aw defin wu yonent bi jàngale yenn saa yi boole teg ñaan loolee nañ ko jëm a xam te tënku ci bu ko defee kon ab jullit bokk na ci li muy jële jële ci gëm ab dogal xel mu dal xol bu féex jullit bi taay naa jëkki di am suusi ci li teew mbaa li weesu mbaa li jublu si la faat la faat te jaar foo xam ne fii daa bukk sax na nga bëggee woon da ngay daal di nangu rek ni loolee mooy la neex yàlla moom la yàlla dogal loolu la gëm ab dogal di jëriñ mu ngoog principe bi ci li faat mooy kullu maxtaarahu jalilu fa huwa jamil nit yàlla yi dañuy wax naan lépp lu yàlla tànn rek loolaa ra loolaa rafet li ñëwagul ak li teew da nga cee am wàll waaye la weesu yàlla da ngaa feebar da ngaa gàtt wala da ngaa gudd lépp lu nga xam ne lii ci yàlla bawoo ci yooyu loola rafet na da ngaa ñàkk sa alal sam xar daa dee sa ndey mbaa sa baay daa dee su sa su sa su sa soppe deewee sa mabda mooy lan inna lillahi ma axada wa lahu ma tarak yàllaa moom li mu fi jël ki dee tey di ab néew yàllaa ko moom ki fi toog tam di dund deewagul yàllaa ko moom ki mu jël daa dawlu ji ki fi toog dana ko fekk gis ngeen gëm ab dogal ni mu mën a jëriñi ab jullit indi ko xal bu féex bu fekkee ne bi dee daa ñëw jël sa ndey mbaa sa baay mbaa sa soppe mabda bi mooy lan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñëpp yàllaa nu moom te ci yàlla la ñuy dal ñun ñëpp su ko defee kon ci kaw loolu ku mën a dee da ngay xam ne danaa jiitu ji rek te itam ko jële ko moom doo fa nekk di ko jooy doo bu fekkee metti na ci xol bi am na lu lay defal te mooy di ne lii am mooy li neex yàlla kon nag na na na naa ko jéem a gërëm te jéem cee kontaan bu ko defee mu noppal muy ak texe di xol bu féex boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci gëm ab dogal li teew li li li ak teegul kon ak li teew li da nga ko bàyyi ci loxol yàlla te wóolu yàlla gannaaw boo sababloo gannaaw boo sababloo ñaan sa borom woo wóolu nga yàlla bàyyee nga ko mbir yëpp noonu la ab jaam di def bu ko defee kon nga xam ne yow mu sabablu de dafa war waaye nag boo sababloo ba àggal la cay tojjanti koo ci ay mbir sa borom yàlla dong moo ko mën a xam te ne ko neex dong la mën a amee te nu mu amee nag neex na la maa ngi fàttaliku benn nitu yàlla boo xam ne daa feebaroon feebar bu métti bi mu feebaree li war ko feebar mooy sawablu te mooy faju du dëgg mu dem di faju ji waaye kat feebar bi naqariwu ko moom daa feebar te feebar bu métti lool ay soxnaam ak ay doomam ak ay mbokki jullitam di ko yërëm di ko ñaanal ndekete moom feebar bu méttiwul ci moom teewul mu dem di seeti ay docteur di faju ji waaye ndeke loolu da koy def ci kaw ndigalal yey sayidina Muhammad li mu wax ne sallallahu alayhi wa sallam na ngeen faju ku ci feebar na nga faju amul jenn jàngoro ju yàlla wàcce ndara di wutal na ko saafara lu koy faj ndeke ndigal loola lay tatbiq waaye li mu gëm moo di daa war a sabablu ak wér waaye bu ko sababloo am ko ak ñàkk koo am lu ci néew rek mooy la yàlla bëgg loolu neex na ko benn bis nag docteur bi xëy si ko ci hôpital bi di ko seet docteur bi nag bëgg na koo def mu baasapa bëgg naa neexal xolam tax mu ne ko lo mu ne ko na nga na nga fanaane mbaa biig nelaw nga bu baax waa naka mu loo bëgg nag tey loo bëgg loo bëgg bi maanaa ndax am na xeetu ñam woo bëgg wala xeetu naan bi maanaa ndax bëggoon nga néeg bi nga nekk gën fee sedd wala mu gën a tàng tuuti loo bëgg la ko docteur bi wax xam ngeen lu ko nitu yàlla ka tontu da ko ne uridu alla urid uridu alla urid damaa bëggoon a bañ a sàkk lu may bëgg lu may bañ te lu yàlla bëgg rek mu mu am na ko yàlla bëgg loolu la nitu yàlla ci tontu jeex takk ci yàlla jeex takk ci li muy def lépp ak li muy bàyyi mu ngi ko def ak di ko bàyyi ngir yàlla te bu defee ba noppi lu ca tojjanti koo loola xam na ne ci yàlla la bàyyi ko te loola it neex na ko mu ngoog loolu mbokk juut yi lenn njëriñ la lu bokk ci njëriñ yi nga xam ne noo ngi koy jële ci gëm ab dogal bu jóge ci yàlla subhanahu wa taala te loola téew koo sawablu téew koo sawablu ndax tamit ngay faju waaye faju ga tekkiwul ne bu ko yàlla reyee ca feebar ba loola da koy naqal tekkiwul ni itam bu ko yàlla wér la ca faju ga loolu da koy metti lu ci am rek baax na almuhim mooy yàlla moo santaane ko sabablu ak wér mi ngi koy sabablu lu ci yàlla teg nag baax na noonu nii la ñuy gëmee ab dogal mbokk jiit yi su ko defee li ci def rek mooy ñu ñaan suñu borom yàlla mu tawfiqal nu may nu nu mën a jëm ci li mu bëgg moom yàlla ci li tax nu am ngërëmam ñoo ngi ñaan suñu borom yàlla mu teg nu ci siraatal mustaqim noo ngi koy ñaan mu boole nu ci jaamam ñi nga xam ne lépp lu yàlla dogal loola neex na leen loola nekk nañ ca teewul ñuy sawlu comme ni mu leen ware ba tax yàlla wëlbati gërëm leen ñoom itam yàlla incha allah boole noo ngi jeexal ci ñaan gii nga xam ne sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana ko ñaane te ñaan googa kenn ku nekk ci ñun na ko jéem a mokkal daana ko jox saxaaba yi ñu di ko mokkal di ko ñaane dafa am benn bis kenn ku bokk ci saxaaba yi mu toog ci benn barab mook ay mbokki jullitam di waxtaan nit ñëw jóge këram ñëw ne ko sa kër lakk na sa kër lakk na la ko wax saxaaba bi ne ko déedéet sama kër lëkkul mu ne ko ah sa kër lëkk la demal mu ne ko sama kër lëkkul daal di continuer waxtaanam ak lakk jàpp na ca wetu kër ga fialam ak lakk jàpp na ca wetu kër ga kër yi fa jege woon lakk kër yi fa jege woon ci bare bare lakk na bañ toogee tuuti benn waaye jógewaat fa ñëw nuyu leen ni leen ak lakk daa am ca wetu fële koñ sàngam ba mu dee lakk di tàkk di tàkk ba jub ba jub kër diw falaku nit ña fayee mu fay ba tax na kër diw lakkut muy saxaaba bi ne woon sama kër lakkut moroomi saxaabaam nag na ko waaw yow loolu noo ko xame yow noo toogee fii ñu ne la sa kër lakk na te kër yi jàpp nañu ana kul na sa kër lakkut mu ne bi ma xëyee tey wax naa ay baat yoo xam ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku xëy wax ko yàlla dina la defal aafiya ak jàmm ci sa bopp ak sa alal ak sa njaboot te waxoon naa ko ci suba moo tax ma xam ne yàlla defal na ma ko xanaa kon baat yooyu soxla soxla ngeen koo xam dañ koo war a xam waaye nag nu seet li baat yi ëmb bu fekkee mooy suñuy pas-pas nu fas ko su fekkee du woon suñuy pas-pas nu wëlbati suñuy pas-pas ba mu ñëw ca bu dul loolu boo jaaree ci baat yi te baat yi doonul say pas-pas ak say wax ak say jëf da ngay jaar ci baat yi te du te du dee sa kër lakk da nga ciy jaar ba noppi sa kër lakk su dee sa pas-pas nag di say wax di say jëf ci say cër insha allah la yàlla defal leen la saxaab boobee yaa dana la ko defal leen ko yàlla bool defal ñaan nga mooy allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshi alazim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بعد يعني warko mokkal di ko ñaan suba ngoon te war boo ko mokkalee ba noppi ginnaaw doob arab nga fexe ba ñu tekkil la ko nga xam li mu ëmb ci ay pas-pas yoo war a fas nga fas ko te yenn saa yi déedéet waxtu wu nekk pas-pas day am jëf ju mu laaj ak bàyyi yu mu laaj loolu nañ ci bàyyi xel pas-pas boo gis dafa am ay jëf yu mu laaj ak bàyyi yu mu laaj bi nga ko jàngee ñu tekkil la ko nga xam lu mu tekki mokkal ko nga di ko wax fexeel ba pas-pas yi ne nga fas ko bi nga ko fasee pas-pas bu ci ne la mu laaj ci jëf dee ko jëf la mu laaj ci bàyyi dee ko bàyyi kon nag li ñuy firi mooy allahumma yow yàlla anta rabbi yaa sama borom anta rabbi rek ab conférence la anta rabbi rek ab conférence la ndaxte rabb mooy buur bi nga xam ne moo la sàkk moo la moom moo lay dundal moo lay rey li nekk ci diggante juddu ak dee itam ci war a wërsëg moo la ko gàddul ci wàllu yar la ak tëral la yoon yi nga war a jaarale say say mbir say jikko say jaamu yàlla sa doxalinu penc sa doxalinu réew ak adduna say mbir yépp yépp yàlla moo war a tëral fa nga ko war a doxale ak fa nga ko war a jaarale anta rabbi yow dong yaa may lor yow dong yaa may jëriñ anta rabbi yow dong yaa war a joxe ndigal ma topp ndigal la laa ilaha illa anta amul kenn kuy jëriñ di lor amul kenn kuy def di dindi amul kenn ku ñu war a yaakaar wala ñu war koo ragal amul kenn ku ñu war a sàkku ci moom ndimbal amul kenn ku ñu war a jaamu illa anta ku dul yow alayka tawakkaltu ci yow dong laa wakkirlu alayka tawakkaltu mooy ci yow dong laa wakkirlu wakkirlu woo ci sa bopp munoo dara wakkirlu woo ci jabar wala sëriñ wala njiital àdduna wala diine mënuñu dara ay nit lañu alayka tawakkaltu ci yow daal la dong dong dong laa wakkil wa anta rabbul arshil azim te yow yàlla yaay borom gangu ne gu mag yaay moom arsh wala hawla wala quwwata illa billah maa ngi gëm ne kattan wala pexe nekkul fenn fudul ci yàlla la hawla wala quwwata illa billah kattan yàlla dong ko am pexe yàlla dong ko am kattan ak pexe ñooy ànd dara door a mën a am kattan ak pexe nag ci yàlla dong la nekk nekkul feneen maa sha allahu kaan lu soob yàlla loola am wa ma lam yasha lam yakun lu soobul yàlla loola du am alamu anna allaha ala kulli shayin qadir xam naa ne yàlla mën na lépp wa anna allaha qad axaata bi kulli shayin ilman te xam naa ne yàlla xam-xam ba peeg na lépp yàlla xam na lépp xam gu daj gu ma sëkk wa axsa kulla shayin adadan te yàlla takk na lépp xam na lépp denc na lépp yow mu xam xam-xamu bi yàlla yow mu xam ne yàlla xam na lépp moo ndax war ngaa xam ne yàlla xam na lépp nga di ko moy yàlla di xam ne moy nga ko dafa am as ndaw su jox jaaxle woon lool su jaaxle woon lool ndax ak ñàkk mu dem ci benn waaye bu xaw a sàmba booy di ko ñaan ndimbal pour mu jox ko as alal su mu dimbandikoo waaja ni ko daal man soo bëggee ma jox la sama tuut daa am lu ma bëgg ci yow dama koy defal sàkk ci moom lu bon te mooy ak mooy yàlla ak njaaloo ndaw sa bañ daal di dellu këram ba mu demee toog toog toog toog toog jaaxle ak matti kër jàppaat ko amul pexe mu del siwaat nee naa dem lewaayi waat ko ba xam mu ñëwaat ndaw waa ji ne ko daal man la ma la santoon rek boo ma defalee daal ma defal la ndaw sa jaaxle lool xamul lu muy def ba mu yàgg mu ne ko bisimilah nangu naa ak xol bu naqari ak jaaxle waaja daal tëj bunt bi waa ci rido bi naan ko caay waaye sa taar bi sa taar bi day biddi yu asamaan sax nga koy nett li ko waxtaane ndaw si ne ko yow yaa ngi wax ci biddi yu asamaan ak waxtaane bu ñuy waxtaane man maa ngi wax yàlla mi sàkk biddi yu asamaan ak gis gum ni gis ak xam nga xam li ñu nekke yow yaa ngi wax ci biddi yu asamaan ak waxtaane bu ñuy waxtaane man maa ngi wax yàlla mi sàkk biddi yu asamaan ak xam lu xam lii nu nekk gis ni waa ji ne bërët bëtee xonq kanam nga soppi ku mu tiit dindi xaalis jox ko ne ko doxal xam-xamu bi yàlla yow mu xam ne yàlla xam ne li ngay def loolu lay jël day tax nga bàyyi lu bon li nga doon bëgg a def te def lu baax kon nag boo nee anna allaha axaata axaata bi kulli shay'in ilman qad axaata bi kulli shay'in ilman yàlla peeg ne xam-xamu bi lépp rikk waay na nga rus kenn ci ñaar yi benn bi mooy nga ne fi barab di fa def loo xam ne yàlla dala koo tere yàlla di ko xam di la gis wala nga ne fi barab di fa def loo xam ne yàlla da koo santaane te defit wa sellul melul na yàlla bëgg te xam ne yàlla ngi lay gis mu nga allahumma inni audu bika min charri nafsi ci ñaan gi la ci topp mooy yow yàlla maa ngi muslu ci yow ci ayu sama bakkan ayu sa bakkan mooy lan mooy la nga def ci ay bakkaar yàlla du mooy alage waaye nag lii tax mu alag la mooy ay bakkaar yoo def kon nag ay musiba yu bari ay natt yu bari ay bakkaar a koy waral nu ngoog moo tax bu ñuy jooy bekkoor bi leen bekkoor bi bakkaar yi ñii tawat ñu li manque ci tool yi mën leen li manque ci tool yi li manque ci diina jee ko ëpp sa borom yàlla nee na wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum ma an gadaqan walaw anna ahlu qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakaati min assama yàlla nee su fekkee nit ñi góorgóorlu nañ te jub mu andi ay xéewal ba mu ne gaañ xéewal yi biir ak yooyu biti dëgg la nit dina dëng yàlla da ko xéewal su boobaa nag istidraaj la tudd nit mën naa dëng yàlla teg ko musiba ak fitna muy ibtilaa nit mën naa dëng yàlla jox ko xéewal muy istidraaj benn baaxuti yeneen yàlla musal ci ñaari yëpp ala kulli xaal li lay dal ci ay musiba ak fitna bàkkaar yi ngay def moo koy waral te gënu gënu yàlla di la baal lu bari yeneen yàlla baal moo tax ngay musul ci yàlla yàlla na yàlla musul suñu ayu bakkan la nga nangu ne ayu bakkan la ba nga di ci muslu yàlla war nga caa delloo déedéet audu bika min charri nafsi maa ngi lay muslu ci ayu sama bakkan wa min charri kulli daabatin anta axirun bi naasiyatiha jépp daab lépp luy lore loo xam ne yow yàlla yaa yor nas ba maa ngi làq ko ci yow di la muslu ci mbugal aw ayam di la muslu ci aw ayam ñaan gii mbàkk jullit yi kenn ku nekk ci nun na ko jéem a mokkal jéem a seet pas-pasi tawxid yi nga xam ne moom la ëmb jéem koo fas ci xolam di ko wax ci làmmiñam subaak ngoon di ko beesal ci ay noppam ak xolam te di ko jéem a tatbiq di ko appliquer di ko jëf ci ay cëram ndax yàlla jubóog nun ndax nu jubóog yàlla ndax yàlla defaral nu sunu àdduna ak sunu àllaaxira yal na ci yàlla dimbali aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin wassalaamu alaykum
سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم noo ngi beesal sunu tuub ci yàlla di jébbal xam-xam lépp yàlla subhanahu wa taala di nangu ne melokaanu mat la ci yàlla xam-xam melokaanu mat la ci yàlla melokaanu manq melokaanu mat la ci yàlla ci yàlla la dëkk xam-xam sifatu zaat la ci yàlla ci yàlla rek la dëkk feneen foo fekk luy nuru xam-xam fudul ci yàlla bariwul dëkku fa te du fa yàgg matewu fa ak réer mooy sunu melokaan dëgg-dëgg ak réer mooy melokaan doomu aadama mooy melokaan Abdoulaye Soule waruma xam dara ci liñ may laaj ak tën mu nga bu fekkee ne bi nag am na ci benn benn yoo xam ne rek fekkoon na ma teewlu woon lu ma ci mosoon a jàng ma wax la ma ca xam su fekkee juum naa mbokk yi fi nekk jubbantil ma waaye maa ngi baamtuwaat ni doonuma ku xam kuy tontu ay laaj li nga xam ne nag moom laa teewlu ci laaj bu njëkk bi ci koo xam ne kii dafa yoroon deux cent mille la wax de deux cent mille francs bëggoon cee jënd ab oto bëgg a xam ndax bu ko dencee lu yàgg jëndagul oto ndax asaka war na ci wala waru ci ngir tontu laaj boobu ci ñaari yëf la aju pour moom mu asakaal ci ñaari yëf la aju ñaari yëf yi bu ñu bokkee am rek kon asaka war na ci bu ci benn manqué asaka waru ci bu njëkk bi mooy bu fekkee diir bi ñu ko denc mat na fukki weer ak ñaar wala yoroon na beneen xaalis bu ko fi jiitu boo xam ne moom moo fi jiitu te xaalis boobu nag moom dat bu ñu ko yore woon ak léegi mat na fukki weer ak ñaar loolu mooy benn bi ñaareel bi mooy bu fekkee ne bii li mu am ci xaalis lépp ko boole mat na nisaab nisaab nag mooy valeur u quatre-vingt-cinq grammes ci or maanaam benn gramme or lu muy jar ku multiplié par quatre-vingt-cinq loo loola ci xaalis ku am lu toll noonu ci xaalis rek asaka war na ci ndax loolu nag deux cent mille francs ndax mën naa jënd quatre-vingt-cinq grammes ci or loolu yéen a ma ci tànn yéen ñi nga xam ne yéen a ma gën a jonjoo ak marché bi ala kulli xaal am na ay jamono yi nga xam ne mënu ko woon xaw ma nag léegi ndax gëj na maa xam njëgu or bi fu mu toll bu fekkoon ne daal deux cent mille francs mën naa jënd lu mat ñaar fukki dinaar charan ñaar fukki dinaar charia bu fekkee ne bii mën na koo jënd te mooy quatre-vingt-cinq grammes kon loola asaka daf ciy daal di war kon nag ngir mu xam ndax deux cent mille yi asaka war na ci wala waru ci gannaaw bu mu amee at day laajte ba xam ndax loolu mën naa jënd quatre-vingt-cinq grammes wala déet kon nag ci kaw gàttal ma tënkaat su fekkee deux cent mille mën naa jënd grammes yooyu ci or te itam am na ci loxoom fukki weer ak ñaar nar bu mu ko nar a jëndi oto téewul asaka ma war na ci ak waa Makka borom xam-xam yi dañ cee am werante rek ndaxte wuuteeg wuuteeg weer yi dafa feeñul woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi wax ci wala mu jëf ci waaye bi yonent bi nekkee booba islam réew yi mu nekk génnagul woon aljazeera la arab yi presque arab yi génn ko woon soreegul woon lool ba tax na bu weer yu feeñee rek ñëpp a koy dégg ñëpp ci jotandoo bu ko defee ñëpp daal di woor ñëpp tam daal di wori bu dee koor bi nga xamee ne bii nag jamono dox na ba ñu ubbi yeneen réew ubbi yeneen dëkk islam génn presque arab yi dem ba Égypte dem ba ba Irak dem ba yeneen réew yu bare bare bare siifu yi door a rëy ñu door a tàmbali nag di nemmeeku ni waa dëkk sàngam mën nañu gis weer te fekk waa dëkk sàngam ñoom gisuñu loolu mu ngi jëkk am ci jamono Seydina Ousmane ibn Affan jamono yi mu nekk amirul muminin benn bis benn waaye dafa jóge Sham ñëw mu ñëwee fekk Abdallah ibn Abbas di ko laaj la xew Sham baax ci weeru kooku ne ko ñun noo ngi gis weer bi bis sàngam mu ngoog ci la ci lañu ci lañu woor abal naa baax nag waaye ñun gis gis boobu ñun gis tàngam moom la ko gis kenn ko waaye fu la dee feeñ na ba mu aawee sax woor na mu ne ko waaw waaye ñun gis gis gis rek fu la ñu mën a woor loolu moo jëkk a feeñ ci li ñuy wax ixtilaaful mafaari maanaam wuuteeg taafeer yi mu ngoog ba mu amee nag borom xam-xam yi ñenn ñi sukkandiku ci loolu wax ne réew mu nekk dañuy bàyyi ba gis weer wa mu feeñ ca réew ma wala mu feeñ ca réew yi fa jege borom xalil ne ndara xamu feeñi sori lool ba mel ne andalus ak ba mel ne espagne ak iran te xuraasaana min andalus ñeneen ñi gis ne ginnaaw yonent bi daa wax ne sallallahu alayhi wa sallam suumu li ru'yati lhilaali wa aftiru li ru'yatihi na ngeen woor ngir gis weer wi su ngeen gisee weer wi woor leen yéen ñëpp su su feeñaatee ci korité woor leen yéen ñëpp su leen demee wala mu lënt ngeen woor fanweer ginnaaw yonent bi naa suumu su ko benn jullit gisee rek suumu ñëw na te itam ci jullit ñëpp lay jëm kon waa Sénégal ak waa Iran ak waa Espagne ak ñëpp dañoo war a wooral mu daal nekk ñaari dégg ni yoo xam ne benn bu ci nekk mi ngi sukkandiku ci kaw ittihaad borom xam-xam yu bari nag ñu ngi woote ni su fekkoon ne jullit ñëpp mën nañoo def tawxiid boole seen matla ñëpp di woorandoo ci adduna bi ñëpp di wooreendoo dana gën a baax te ñoom jàpp nañ loolu mu ngi dëpp ak islam ci kaw loolu bu fekkee dañoo gis mbokk moo xam ne dafa dogu ci saa bu waa makka wooree mu daal di um saa bu waa makka wooree mu daal di wori waaye nag sàmmante nag loolu saa bu ñu wooree rek moom donte nit ñi wóor ñu day woor waaye sàmmante nag loolu bu baax a baax dund damay wax ne ànd naag ay borom xam-xam ci loolu. alxaaliqa wa saaliqa dafa doon la xadis boo xam ne mokkal na